doy waar dina yóbbu juróomi mbir mooy allergie sinusite bopp buy métti bët yu neexul loolu daf koy faj biir buy métti biir buy def ngelaw biir buy yuuxu daf koy faj hémorroïde su duggee ak su génnee daf koy faj deret bu yéeg ci xorom muy tension daf koy faj deret buy yéeg ci suukar muy jabet daf koy faj coono bu chronique ak sibiru daf koy faj waaye li gën a yéeme ci àndala mu am tur ba wër réew mi bitim réew mooy gaaw a daanu di yéex a taxawal taxawal te du dëgër taxawal mu dëgër te ngay gaaw a bàyyi ndi ko moo ci gën. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu maa ngi sant yàlla di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa di waxtaan ci suma diggante ak Mara daanaka ci wax yu mujj surtout ci anam bii ma koy defee li waraloon coow li yëpp mooy ne moom Cheikh Bara Ndiaye dafa dëkk ci dëkk bi di boroom xam-xam am sañ-sañ di def jàngat liy xew ci dëkk bi ci façon bi mu ko mëne loolu duraawu Cheikh Bara la ma respectel ko duraam boobu su waxee am ñu ko gëm am ñu ko weddi am ñu koy gërëm am ñu koy xalab man ma dëkk ci dëkk bi am droit yi tamit su mbir xewee ma jàngat ko Cheikh Bara ay ojoom génn dëkk bi yëpp am ci gis-gis mu génn génnaat wax ma am gis-gis ci audio yi gi am gis-gis ci waxam Cheikh Bara tontuwaatul ma ndax xam na ne du personnel ndax xamut ma xaw ma ko yaakaaruma ko waaye moom it yaakaaruma jëriñuma ko dara te jëriñut ma dara moom ba tele ba jeexee parce que responsable la dafa ñibbi këram toppatoo njabootam man su ma jëmi bopp ma nekk ci suma njaayum àndalaa bi doy waar ak régu ndax mooy garab yi gën ci réew mi marañas doon ab benn yambar bu amul benn fayda gëmut boppam bugg a xaritoo ak Baara jaral ko mu jël suma image te amul ci benn droit ci lislaam amul ci droit ci luwaawu Sénégal amul ci droit utiliser ko tiim ma xas ma doya dal ma wax ma kàddu yu ñaaw yoo xam ne du ko wax sëriñam du ko wax yaayam du ko wax baayam du ko wax xaritam mu wax ma ko loolu rafetut te jaaduwut bi ma tooñee nag fayuwuma ndax bu dee benn bis sax am nañ ko kóllëre xamante neen ko li ma def mooy yëkkati suma téléphone woo ko ñaari yoon jëlut ma yónnee ko message mu tontu ma lu ko neex ma xam ne nag lii doonatu tooñ yabaate la ma faj ko à façon ndax jàng yooni xam-xam la waaye taxut a xam xam-xam mbuutu yàlla la moo koy may ku ko neex yàlla xam na ne ci buntab sant yàlla man maa ëpp marañas xam-xam ci diini ci hadis ci ahlu suufa maa ko ëpp xam-xam ci lasraar maa ko ëpp xam-xam ci baatin ak baatini baatin benn doomi adama sañu te wax nit maa la ëpp xam-xam ndax góor gi ñëw na dugg ci biir gaal gi ne mool bi mbaa jàng nga téere diw mu ne ko déedéet jàng nga téere diw mu ne ko déedéet mu ne ko kon yow sa na xamoo ñu dem ba géej gi yëngu mool mi ne ko mbaa jàngoon nga fay mu ne ko déedéet mu ne ko tey de kon sañu maa wax maa ëpp maaraañas xam-xam waaye ci diin lislaam bii ñu bokk moom man xam naa ne ci lu dul benn rëy ci buntab sant yàlla duma moromam kon su ma mënee tiim na ma duma nawloowuma la mooy jamono yàqu na bi ma waxee loolu ëpput ma làmmiñ ëpput ma audience ëpput ma bayre ci xoli nit ñi ma waxal ko wax yu rëy te ñaaw te dara du ci fen ci biir wax jooju may jokkoo ak ay taalibeeb Serigne Saliou Mbacke fii ma toog doomi soxna moomi mu Serigne Saliou moo ma woo bi ma wooyee wax yi ma wax dara gënu koo sell non maa ngi lay ñaan ci jëmm yàlla ak yonantu jëmmu joojee baal ko ndax man awma Facebook te loo wax ñu yónnee ma ko mu ne ma bul ko topp ndax ni koy weeree nit dana ko dégg rek bañ ko te doomu dama kenn waru ko bañ. ma ne ko moo ma tooñ mu ne ma baal ko ngir jëmmi yàlla ak yonantu ma ne ko rus naa sëtu Cheikh Ahmadou Bamba sëtu Serigne yu Mbacke ñaan ma man ci mara tooñ ma te duma ko baal loolu rus naa ko ndax bët bu rusul toj ma toog tey si suma commentaire kenn ñëw na ma Mara vidéo yi mu defoon ci yëpp dañ ma maa ngi seddaloo yàlla ne Mara bu yëgoon ne su ma defalee vidéo boobu dégg lii mu dégg du ko def xalaatu ko sax bi mu fa jógee jox na xaalis ñu bari ngir ñu def vidéo man am na ay mbokk ci dëkk bi laa dëkk senegal ku ma fi bokkalul raay bi moo la indi wala danga lang ñëw dëkkoo fi gan nga ak noo mën a sant nag soo bokkut ak nag rek dëkkoo ci dëkk bi su ma benn mbokk jugut wax vidéo su ma benn xarit nii am di jàmme utiliser wu ma benn journaliste pour mu wax Mara jël na booy yu nekk charlatan yu ndaw yi ñi tekkiwu dara yëpp di def vidéo di ma attaqué te waxuma leen defuma leen jotewuma ak ñoom gis nga su fekkoon ne supporte Mara Niass rek la munoon nañoo ñëw ne Mara dafa baax taalibi waxal ko te waaye suma image la ñuy jël utiliser waat ko di ma xas di ma saaga fi tunkara di tuumaalee suma waay waajur bu góor tuumaal ma man ci suma jabaru nijaay Mara jël ko dugal ko ci kontam ba lixuwaan yi wala ayatan ku ko def topp nga na dafa jottali wax taxut ma déstabiliser wu ba tudd yaayam ak baayam ndax bokkuñ ci moo tax kuy xeex da ngay xeexee xel sago ak dal boo ko deful rek perte nit tooñ ngeen ko mu topp ko ba ñàkk dëggam vidéo yëpp Mara génnee na ko ba mu set man nag du ma génnee suma yos ndax ba ma koy wax mer taxul mais den maa tooñ ma war koo wax wax ko mais comme moom moo dugaloon suma video retiré ko ah nit nag duñ ko topp ba mu sës kilifa yu bari ay sëti Serigne Touba direct sët sët sët sëtaatu Serigne Touba sët sët sëtaatu Serigne Touba bët bu set dinaa jot lu mat fukki appel amul kenn kenn kenn kenn ku ma ne la ngay wax du dëgg loolu amul yërëm ko baal na baal ko rek lañu lay dégg lu tax dama gëm ne Mbàkke baal la ñoom ñoo baax ba bu nit tooñee sa bëgguñ ku ko wax ndax ku am noppi gar doo bëgg a dégg lu ñaaw man noonu laa ko jàppee. ba ci doomi Serigne Saliou Mbacké directement jot naa ko mu ne man nekkoon kër sëriñ Saliou ak yaroo kër sëriñ Saliou du benn kër Serigne Saliou ku fa yoroo doon royuwaay ci la ma wax ne Cheikh Ahmed lu waaye dof-dof Serigne Touba du la nax waaye lu waaye muus muus munoon nax Cheikh Ahmadou Bamba am na ñu doon tuddoowoo sëriñ Saliou Mbacké dañoo mujj fay ba kenn gisul leen te texe ci àddina amuñ ko àllaaxira alalu yàlla la. Mara wër na dëkk bi yëpp ku ne mu influencé pour ñu waxal ma kàddu mais ñoomi i neen seen kubudu kubudu yi ñooy jóge ko ñëwaat ci man naan ñu ngi jéggalu xam nga rek da di suñu waay moom de nangam nangam wax lu nekk Mara woowut ma jéggalu ma de déedéet dama xam ne li ma ko yenn àttanu ko réccu na ko rëy jàpp na ko kilifa yi ñaan ma ma def stand by ndax su ma ne bàyyi naa rek bàyyi naa te Mara du nit ku baax du nit ku jub saay-saay la ndax ci pexe mu juba di lay dox su ma joxee kàddu ne bàyyi naa ëllëg mu dooraat du ma mën a fayu ndax man duma wann suma kàddu dama dis gor génnee na sumay vidéo léegi buy wax day gaaruwaale tuddatut Cheikh Ahmed Cissé nam ko waxee woon sañatu ko ndax duma doom ju naxari ndeyam boo ma dóoree dama lay dagg boo ma kokkalee ma jooy loola lenn rekk laa ragal mooy ñàkk mooy tooñ moom ñemewuma ko su ma ko defee sax xaw ma ne damaa tooñ yëguma ko képp ku Mara doon taxa def vidéo ci man wéetal nga laaj sa bopp Cheikh Ahmed lan la ma def lan la ma wax lan la jotee ak man man may kan ci réew mi ba war a utiliser image am teg ci àdduna di ko wax ketebe boo tontoo sa bopp rek rek la situation bi mais damaa mën xeex ba su ma si nekkee dara déstabiliser wu ma tontu wu ma ñooñu parce que du ak ñoom. gis nga booy seetaan football da ngay passe gauche droite fekk ci digg bi nga bëgg a ñëw mais da ngay créer espace Mara dafa créer espace ba sonn ma dëju parce que suma problème yëpp mooy fi ma visé fa laa war a jam ndax alxarbu qidaatun xadisu yonentu la sallallahu alayhi wa sallam ba tey maa ngi seedeloo yàlla ne bés bu gëmee ne yoruma ay vidéo fu muy nekkee ak ay jigéen di def yëfu caaxaan saa yu ko waxee ma yónnee ko ci àdduna ñëpp gis ko loolu moom duma ci dellu ginnaaw retiré wu ma propos boobu toujours maa ngi ci insisté fii ba suma bakkan bi mu ngi def ngelaw bés bum mu bu ko gëmee ne rek yoruma ko dina ko wane ak audio yu muy jëwee yooni murit di jëw sëtu Serigne Touba yi di wax ci ñoom lu ñaaw bés bu gëmee ne amul rek ma génne ko te bis bu waxee ne génneel génnewu ma damay fen fen dafa xaraam waaye fen ci pénc te xam ne dangay fen asgor gor mënu ko beneen ba ca des yéen victime ma ràññase wallaahi suma wallaahi duma leen wor lépp lu ma waxoon ak yéen danaa ko def su ma yemee fii rek beneen dégg-dégg bu ñaaw la ci nit ñi di am lan laa waxoon ak yéen mooy ne danaa leen dimbale ci yoonu Sénégal ngeen jot seen àq lii laa waxoon ak yéen fayuma leen soxlawuma seen xaalis fayuma leen soxlawuma seen xaalis waaye procédure bi ma jël kilifa yi ma war a gis gis naa leen ña ma war a waxal wax naa ak ñoom seen plainte yi ñu ngi koy toppatoo kenn ku ci nekkul bitim réew utal koo dajale nga jox ko représentatif mu teewal la ñu def lañu war a def ñu xool senegal am na yoon wala amul yoon loolu duma leen war ba àdduna tukki musuma jël responsabilité ci kenn ci yéen danaa ko fay xaalis ndax damaa liggéeyut pour mara di tappale may fay duma ko def waaye fépp fu ñu war a jaar lu ñu yoon may danaa ko def avocat ba ma leen wax ne jël naa ko fay naa ko it fay naa ko loolu du suma problème kon lii laa bëgg mu leer beneen ba ca des Sénégal dafa toll foo xam ne bu la nit tooñee seetal fa mu gën a méttee nga dóor ndax réewum tooñ la ay tooñkat rek a fi dëkk dangay toog di wax sa wax sax ñu dugg sa biir live saaga la te oowoo leen seen ñàkk jom wala seen am jot moo la indi sa live man de ku ma safut duma la safoo ba di la seetaan ku ma neexut duma neexoo sa live ba da ca bànneexu waaye képp ku ma gëm ne fenkat nga duma la déglu ndax xibaaru fen loo ci dégg doo ko jëriñu waaye ñàkk jom ak am jot moo leen di indi ci live bi te woowuma leen bu la nit tooñee yëngatul duma ko bañ xam ne pànk nga dafay xam nga léegi li maaraa def ñu bari ñemeetuñ ko balaa nit di jëlati suma vidéo suma photo di ci wax lu ko neex dana tàggu mbokkam yi ndax tey su fekkoon ne Mara duggut ci man liñ ko dégg lépp duñ ko ko dégg. kon ne leen ñu moytandiku tooñ te bàyyi deri gor ñi kon li may wax ci guddal ak gàttal mooy def vidéo ci Mara loolu moom aj naa ko dama ko ajande ko su defaatee rek ma wàccaat def li tax ma aj ko nag. mooy bëri na ay sëtu Cheikh Ahmadou Bamba yu ma ñaan njëkk ak teraanga ne dañuy am kersa ngir nu muy mbubboo Serigne Saliou Lo rek moo leen kersaloo ndeysaan ki ma woo léegi doomi soxna moomu bi nee na ma comme tudd na Serigne Saliou rek bëgg naa ko baal yàlla tax làmmeñ la maara am ma ko muy bandi bandi lu ma doon bandi biir muy fortaatu fit ma am ko ba mu doy muy sàkku ndimbal ci nit ñi ma jublu yàlla sàkku ndimbal ci moom def loowu ma vidéo kenn te réew mi ñu bari ñoo gis ñu doon influenceur man maa leen tii suma loxo bi duñu yëngatu te tàgguwuñ ma te ku ma na bàyyil fi ngay liggéey nga jógee fa mais duñ ko manifester ñu ni neen bu ñu tasee sa liggéey defal sa liggéey su jeexee jeex na ñoom ñëpp laa amal rapport bu ma toogoon suma kër woote télé yëpp teew ndax ñi ma xam-xam neen ma ñi ma bëgg-bëgg neen ma ku ma xamul nag réeree ma loo wax baax na am na ñu réeree yàlla ba ne ñaar la ñi ne nag la te yàlla mu ne huwa al-awwalu wal-aaxiru wa zaahiru wal baatinu nit jàpp nag ne yàlla la am na ñu réeree yonantu ba ne feeñ na Pakistan am na ñu ko réeree ba muy feeñ ci malaani wasifa te gëmuñ ko loolu yaa dina kon maa ngi wax ne li mu ma def bu génnee ci man ma génn ci moom ndax bokkuñu yoon man damay jaay àndalaa buri muy dëgëral awra góor di ko yokk kàttan ba mu di ko yëg doy waar mille pouces ngay def régu bu dëngee mu jubbanti bu tuutee mu réyal bu gàttee mu guddal li lay jaay moom la muy def danaan day seetloo day seet bu nit ñi ñëwee mu nax leen jël seen xaalis te leen wuyu bokkuñu yoon moom dafa dem fekk jëmm ju sell ju mel ni Serigne yu mbàkke laxasoo ci moom ngir ñu ko bëgg bëri neen surtout ndawi tey ngir ñu mën koo gëm mu mën a arnaque man damaa jël Serigne si ber leen ca kaw baaxal leen ba pare jël suma bopp ne maa bon loolooy dëgg-dëgg sellal leen ndax yonent yàlla Yuusu Yuunusa bi mu demee ba ca lëndëm ga daf ne inni kunta mina zalimina ngir bonal boppam baaxal boromam kon maa ko gën a xam dangati wàllu yàlla yii moom day dem di mbubboo kër sëriñ tubaa ci lu bon ma sellal waa kër sëriñ tubaa teyam suma lu bon nit bu la ormalee lekkoon di raxasu nga jox ko loxo daf la naan ah baal ma loxo bi dafa taq ngir fonk gim la fonk waaye bu dee sa dala koy jox ngir nga taq man nag fonk gi ma fonk kër diine yi moo tax ma rasu ndax baaxul te ma gën maaraa ci kanamu yàlla te mu ngi askanaloo sëriñ Saliou Mbacke ak lu mën a xew wax leen Mara yéen ñi ko bëgg mu bàyyi ñaar benn bi na bàyyi góor jigéen yi muy àndal di wax ak ñoom ak a faral ñaareel ba bàyyi Serigne Saliou Mbacke bu muy mbubboo su munta am jikkoom ak ak ak ak ak ak ak yaram ndax góor jigéen baaxul Serigne Saliou du caaxaan leneen lu dul lii nag bu ko neexee ku dof ba mu tappale la yow la neex mënta seet mënta liggéey. jaamuwut yàlla ba am cër liggéeyut wala liggéeyalut waliyu yàlla bañ gërëm ko ci boppam rek la nekk uti sëriñ sangu fii génnee sarax am wërsëg nit ñu nga xam ne bañ amee alal dañu war a joxe asaka joxewuñ dañu war a dimbale seen mbokk dimbalewuñ dañu war a taxaw seen bopp taxawuñ la saytaane di nattu ñu dem ci maraja jox ko seen xaalis te dawaat di ci topp waaye gëmuma ne pour def li nga war a def jaar fa nga war a jaar di joxe sa asaka di saraxe taxaw say mbokk yàlla mën na laa nattu ba nga dem ci maaraam mu lekk sa xaalis gëw ma loolu mën naa juum nag te neewu ma it loolu am waaye dama ne man gëw ma ko kon ma bëgg wax dëgg yàlla ngeen xam ne maaraam moo ma tooñoon dugal suma vidéo daw na génne ko dëgg dëgg nag duma la topp ba nga sës damay taxaw mais olof mu ne yetu noonu duñ ko tëral dañ koy wéer damay wéer et bi ci bunt bi bu ne yorul suma vidéo rek ma tëmbal bu ne yorul audio bu may waxee yooni murit lu ñaaw ma tëmbal mu des ñaar la benn bi mooy jël campagne contre moom ni muy liggéeyee te du dëgg maa ngi yónni ay nit yu war a mat set jox leen numéro ñu koy woo pour seetlu saa yu ñu koy woo dañuy enregistré date beeg lépp jox ko xaalis ak suñ koy woowaat du jël épisode laa koy def. Mara mënta xeex xamut nu ñuy xeexee daf doon def téyër loolu doxul mu dugg fii génn fële rek ñëwaat toog ndakaaru pour wan leen ne man su ma takkoo ba dëgër jublu ci nit lenn rek moo lay musal mooy nga bañ maa tooñ waaye soo ma tooñee rek yàlla seetaan la yàlla du dimbale kuy tooñ. waaye pour wan leen ne ba tey maaraam mu ngi ci li mu nekk am na sept huit personnes ñu ngi koy woo fan yi dafa mel ni dafa xaw a nante dix mille trois cent mille ñu ngi ko koy jox presque cent mille francs ndax xeex da nga koy mën te ku amul xaalis boo mën a dugal ci xeex ci jamono ji bul xeex lu mu leen laaj daneen ko ko dugalal mais du dina ko lekk waaye du jàll ndax xaalis bu lekk wut la waaye am ma jël vidéo di wax ci moom moom bis ni laa koy koo gum ba ma gisaat mu waxaat ci man lu dul Cheikh Ahmed yaa rafet xam naa ne sax du dëgg rafetuma yaa baax yaa gën yaa riche yaay borom baatin bi borom àndala borom doywaar borom régu borom fetalu ñaari ngémmiñ ñi da ciy tooñ di fayu jëri ma ca wàlloog alsaan sàmba yaasin seti biran jama jàngo beeg àndala buri lu dul lii mayuma ma ko maaraa ci man bu ko defatee rek beneen façon lay jël su boobaa dootuma nekk di wax muy wax muy miin suma kàddu di ma yem damay mel ni birima mi ci benn baat bi danaa wax ak moom te du ma wax xam nga moom ay booy lay jël ñu def vidéo bu leer leen ne maanaam moo leen ko defloo ñu ñu nantewuñ mënuñu man damay wax ba pare nit ñi di ma yónnee mel ni waxuma te fekk maa fa jaar parce que xarañteefu xarala yu bees yi yàlla daf ma ci may aslëf ba ma mën cee def li ma saf donc soo amee jom mara <coughs> dégg naa olof daan wax benn baat waaye ci marañas laa ko gëmee ñu ne lu réer ci juddu feeñ ci jikko bi ma xamee jikkoom rek laa xam juddoom ma ne langar wa du jaas mukk donc ku dul marañas damay avertir su ma la waxul bu ma wax su ma la defut bu ma def su ma duggul sa 18 bu ci dugg àdduna sa simple ba pare mara dama lay digal xoolal sa entourage bu baax a baax man xawma la musuma am soxla ci yow ndax teguma la bët teguma la làmmiñ taluma la xaw moo ne sa yaa ngi existé plateau lañu tese ku nekk sentir sa morom nga ñëw suma kër nga ñëwee suma kër nga wax ak man lu rafet ne ma jàppale la ma gën la wan yoon di la orienté ma nangul la ko ma ne la seen yi ngeen nekk bu ma ci nekkoon moom réew ndax yéen ci pexe kese ngeen nekk ak lal wéeroo influenceurs yi man solo ma influenceurs yi man suma bopp li ñuy def mën naan ko te maa ngi ko dàq. influenceur mën na wax ni ñi di déggu vie yu bari mais bala nga xam ne mënuñu la bëri nga jaay leen dara dañ ciy wax di nodd client yi du yokk. parce que nit ñi dañuy seetaan ngir bëgg mais pas man danga may seetaan ba pare ma convaincre la li ma bëgg nga def ko nga def ko li ma bëgg nga gëm ko nga gëm ko man loolu may la macha allah danga def ci man vidéo ci guddi gi bët set ma defar la vidéo sa jabarat ja nga fase ne daf doon sawlal ku la xamul munu koo xam ay tamit ci siiri wiri wiri nga nekkoon ak moom di dem Dubaay di ko jox sa oto mu di ko téye am ñaari caabi yow nga am caabi mu am caabi ku la xamul mënu koo wax ndaw sa nga jëlee France di ko laal ci même appartement ak jëkkëram jël ci moom 33 millions ku la xamul mënu ko wax sa doomi biiral yi nga bañ yi nga nangu ku la xamul mënu ko wax say vidéo sex tape ku la xamul mënut la caméra ba di ma ko yónni sa ojo ya ngay waxee ci yooni murit ku la xamul mënu ko wax kon il faut si sa problème bii nga am ak Cheikh Ahmed nga xam ne yaa ko tooñ ci ngay jàngee defar sa taxawaay maanaam lu dul njub du la jëkk ndax yaa oote ki gën a jub ci jamono wala ñaar nga génn ci woote woo Sëriñ Saliou te nekk si sa bopp mooy sa sutura ndax yàlla ko aaral boppam te yàppam den ko posone loo ci lekk du la jëkk te bokk na ci lekk yàppi Serigne Saliou mooy tuddoo turam nga bàyyi sa xel bu baax te képp ku la doon defal vidéo ku dul nuuru laa eh, ku dul sinwaa bi ak nuuru laa mu ngi doon wax ak man ñi ngi doon déglu ñeneen ñi xaw ma leen may woo di wax ak man di màtt ci suuf di la ëf ci kaw kenn gëmula ci te ñëpp sa suufee lañu bëgg man duma sa noon man mënuma bañ nit mais ku ma bëgg a yab ma won la ne duma sa morom te danga yabaate mara xamoo sa bopp fuuy nga beew nga ngir wekkeet yu ndaw yi nga am gisoo bi ñuy bi ngay wax ci kii naan suma xaalis loo wax am naa nit ñu baax man duma bàkkoo nit ñu baax am naa magi milliardaire mais su suma mu xam sa moo ma gënal monsieur duma bàkkoo nit su ma demee bay ndamu si suma bopp laay ndamu ndax man suma bopp rek laa bëgg suma télé bii suma bopp rek laay seetaan su passé football mara yaa ngi mel ni ku sol tubéy fekk sa taat yëpp a ci biti amul lu ma xamul ci yow ba ci sa juddu ba ci say way jur sàgganee ba nga leen sàgganee lépp xam naa ko te ña nga nekkal ñoo ma ko wax am say vidéo yoo xam ne du sexité mais bu génnoon sa gàcce am ndax yaa ngi tagg sa nawle doon jaam ci kanamam tey nga ne moom ngay tendance xoolal sa entourage wuyul say client koo mënta liggéeyal delloo ko alalam luñ la ñaanloo te mënoo ko neel mënuma ko loo xamul neel xaw ma ko sa wërsëg nekkut ci ñaan yàlla ba ngay jàng téyër ñaan yàlla dimbaliwule woon bi ngay siikar ci xasida yi ci yoonu Serigne Touba boo ko gëmoon te muy dëgg ci yow xasida yi tere la ana akasa sàmm dem na bay gis yonantu sallallahu alayhi wa ci barke xasida yi akasaar dem na ba am cër ci seexu tijaani te murit la ci barke xasida yi akasaar dem na ba yàlla def na ci moom barke macha allah boo xam ne lu borom alal di am am na ko te am na mbégte muñ amul fu mu ko amee ci xasida yi yow nga nekkoon tàggkatu yonantu yàlla muhammad ci buntu sëriñ Touba ba ko fa dem ñaw jógee ci ñaw ma ñëwaat ci sëriñ gis nga yaa ngi ko sekk xasida ba nga ko tëkkoo ñeenti fan juróomeel wala suma vidéo wàcc ci yow ma di la summi di la waxal te fenaluma la sosaluma la lu ma wax am naa ci preuve te ma xamal la ne site mixta boobu boo yi luwe site mixta <laughs> bu ju kenn <laughs> wallaay bu ci xuloo kenn fan yëpp maa ngi woon cité mixta li ma ci ñàkk ci xaalis bari na c'est bien beau ni nga tuxoo cité mixta ba pare amoo jom yow keroog ma la defalee vidéo yaa ngi takk jabar sa nijaay jooju bu moytuwul buy dee di dem safara takk goo takk moo ko takki mara nekkal nit nga dem jëli sa jabar yi téye leen te bàyyi lii jigéen ñu bëre la mere ci danga leen doon laaj seeni awra ñu la koy yónnee te xamuñ loo ciy def dama xamul sa liggéey dafa laaj laaj jigéen photo awra wala lan nekkal nit te booy duggati ci nit nga xam kii mooy kan man duma ñeexu ñebbe pour kii walla kële man bàyyiwuma ku yàlla bind bu yeboo del fanaan ci yàlla ngeen di waxtaan tama xam ne yaa ngi dem ci yàlla soo ma tegut place teguma la place soo ma fonk fonkuma la soo ma gëmut gëwma la soo ma bëggut bëgguma la soo ma jàpput jàppuma la ndax kat laa xawla wala quwwata illa billahi la aliyil azim dama koo gëm te di ko dund man xaw ma ku baax ak ku bon ku ma fonk laa xam boo débordé rek ma débordé ku mel noonu balaa ngay dugg ci moom da ngay tàggu say mbokk te waajaat yow surtout koo xam ne xam nga ko jël nga numéro jël na sa numéro boo amee looy wax doo yëg a téléphone woo ko ko Sénégal noonu lay doxe Sénégal lépp dañ koy réglé ci suuf ñu fël ci kaw mais nii nga defee nii danga nga juum beneen yoon bu mu la dalati te wàccu ma la de man duma delloo avance de fekk reconnaître woon ne yow yaa ma tooñ nga ne ma baal ma àq wallaay du ma bàyyi. te duma la wax ne dangay tëdd ci kaso gi de moom ma kaso waaye Mara xeex bi li ci gënoon a yomb mooy may wax audio nit ñi di dégg ak video loolu laa arrêté ko loolu dama ko arrêté mais say victimes pour regrouper leen ñoom ñëpp ñu dem ci yoon pour nga delloo leen seen alal loolu moom duma ko ba ndax duma leen war maa ko diggaale ak ñoom benn ñaareel ba. fii ma taxaw ci say audio say vidéo bis boo gëmee ne yoruma ko neel Cheikh Ahmed man Mara Niass may naa la autorisation bu dee da nga gis ne dama doon fo ak ay jigéen nga am vidéo yónnee ma ko yónnee ko àdduna ñaar yi moom duma ci dellu ginnaaw lépp sab ci yow la des c'est toi qui décide loo ci décider baax na mais vidéo moom ak wax ci Mara moom tey laa koy ajanda ko dama koy suspendre ba jëmmi jamono mooy bés bu ko seytaane tong tongalatee seytaane mën ko ba mu ne ci man lay def vidéo keroog bés boobu noonu lay jëlaat jaaj yi te ku yàlla bind du tax ma dellu ginnaaw ndax man su ma dul murit duma taalibeeb sëriñ saaliw ma mën a jox orma njabootu Serigne Touba ba ñaan ma ma bàyyi naka mara bés bu defatee ci man vidéo léegi sax wax bi lu ko gàttal nit sax defatee ci man vidéo mu dugal ko ci kontam danaa génnee benn audio te du am trace. kan nekk saay proche wala kenn lay jox TikTok vidéo mu ubbee fa TikTok yónnee vidéo bi àdduna tasaare ko ndax Sénégal a gën a yàkkamti kaa ci ñenn rek def vidéo ñëpp gis ko ak audio bi kenn def vidéo ci man lu ma neexu rek mu poste ko TikTok am sax mayetuma ko maara léegi fa laa yegg bu ko defee ma publier audio wala vidéo te trace du am. te feeg ñëwut ne baal ma maa la tooñ du bàyyi xeex bi ci suuf la mais doonatul nga ne ma du ko doon wax ji jàpp naa ne wax naa li ëpp solo walla li ma bëggoon wax di gërëm groupe topp am na ñoo xam ne Euh, topp kaa rek leen mun maam seet saar yónnee ma sa numéro yow neex nga ma dañuy dung dung fële dung dung fii euh, léegi maa ngi ci leneen xam buggatuma ci wax ndax xeex naa bam saf def naa li ma war a def li yëngatu na léegi dama koy tegande kooku te mara bu la yàlla nattu woon danga merloo woon ma bam yegg fenn ba ma waroon a jëflante yow konoon di nga xam ne ñëw ndakaaru nit ñi di la coow ak baatin du benn de am baatin nangu ko liggéey ba muy tasarufaat ci yow ak am ko ci téere yi du benn de xam kër yu baax yi yaakaar nañ ñu baax ñi ba mënal sa bopp dara du benn gis nga man su ma duggee ci coow ay sirru yu ndaw yi ay nii nii nii pour fay wax fayul suma coow de <laughs> man dangay fay wax ma koy ëf lasara dafa xaddi <laughs> man ku ma joteel nga foog ne suul wax ak fay wax mën na daane coow li dangay ngay fen xamoo li ngay def sax te man duma dugg ci guerre bu ma mun mënta gañee damay perte énergie man damay xoolaat bu baax xam ne lii bu ma ci duggee am ci ndam dugg bu ma warta dugg rek bu ma ci warta am ndox du ci dugg damay teel a arrêté ndax teel a nangu dafay yombali yi dóor yow ci zaahir ak ci baatin dama la mën a ñuus yow Mara Niass dama la mën a ñuus man ci zaahir ak ci baatin zaahir bi moom ñëpp xam ne ne tégal naa la def naa la ko te indiwuma kenn comme ni ngay dajale nit ñuy def audio di jëli bu tunkara di monter di dugal di woo Dakar Feeling naa fekk yu bon yooyu xam ngeen xam ngeen Dakar Feeling lu ñu def Mara dafa def vidéo ci man ma def vidéo ci moom ñu jël une heure de temps trois minutes di wax ci man biñ may présenté ñu dem jëli video tunkara fi muy tuumaalee suma baay ak suma nijaay ñu teg ko ne noonu leen may présenté franchement parler site warul demee noonu journaliste ba defoon programme bi moom laa di moroom ba am ko woo ko ñu wax lu yàgg ma ne ko li ngeen def jaaduwul te du noonu dama bëgg ngeen jël ma ci seen plateau ma leeral mu ne ma mercredi <laughs> ba tey woowu ñu defaat seen plateau nekkaat ci man dugal Mara Dakar Feeling amatuñ crédibilité ci Sénégal. te maa ngi leen di ñaan dara waa Dakar Feeling buñ ma tàllalati seen micro ci àddina man xaw ma sax fu Dakar Feeling nekk xawma fa lii nag ñaan la rek teranga bu ma leen di ñaan la buñ ma mus a invité buñ ma mus a tàllal seen micro ndax avant man ñu ngi leen di seetaan di leen déglu après man dañ leen di seetaan di leen déglu mais man bugguma loolu te site yëpp xam ne ne musuma bañ interview saa yoo ma woowee ma ubbi la suma bunt mais waa Dakar Feeling ñëw neen suma kër ñaari yoon booy ya fa ñëw nit ñu kuul leen ñu mën a liggéey leen mais lu xeetoog Dakar Feeling mayatuma leen ñu tudd suma tur mayatuma leen ñu utiliser suma image bugguma ñu tàllal ma seen micro te bugguma waxee ci ñoom comme Sénégal ñoo ko bokk te réewum teraanga la lii laay ñaan dama koy ñaan ci njëkk ak teraanga te bugguma mu amati maa ngi leen di ñaanal yàlla tele bi yàlla na màgg yàlla na dem ci kaw yàlla na mën ci Sénégal bi jaahi nabil Moustapha sallallahu alayhi wa fii nii yàlla na dem àdduna yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def mais man suma bopp maa ngi leen di ñaan ci teraanga Sénégal bu ñu mës utiliser suma image bu mës a wax ci man sa moroomi góor nag bu la ñaanee ci penc nga war ko ko may lépp lu def mu jaar yoon jaarut yoon man bàyyi naa mu jàll mais neen màndu ci man kaw ba suuf nag nen courant suma tur ci seen bépp activité xanaa nag lii du problème te yomb na képp koo xam ne euh, yaa ngi ma doon seetaan maa ngi lay sant di la gërëm roxi daba maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla yàlla defal ñu jàmm waaw njool faama jaxaay lu la tee dellu si di yor waaw baay abdu baay allah ji Malick Sy nga neele ca baayam next trip to Senegal I'll come spend some time with you at your house before going to get to the Gambia Talib Mak Makwa alright no problem maa ngi maa ngi lay fay jàq si sama demel yéen roxi daba xam ngeen ne su ma la ba pare dama koo nopp <laughs> ku bëgg a takk nii te suma ma bàjjan la de yan yàlla defal ko jàmm Cissé Ngari Malick Fanta Ndiaye Malick Jalle Ndiaye ba setu Birane Cissé bi sa maam moom mu pir waaye moo jël daraja jàkk xam-xam baak wilaaya ba isaan borom jaamaar la Maodo bëggoon mu mu dëkk munta ñëw mu ne ko jox ma maam Amath Cissé mu jur Moustapha Cissé bu piir yàlla yàlla defal leen jàmm jaahina bil Moustapha sallallahu alayhi wa فهذه سلام مني إليك مارف الأنبار وطيب مسكا damay wëlbati mboolem wayi ni soodaan ca zaahir ba ca baatin bi jar di seetaan suma xaatir dafaroo bahru ka joor may way ki way moo ñu tuuse ay leer muy géwél bi ci lislaam xamal ma ko doon kon ma woy te kañ la yaa doon nu rabbaan sirub ngëneel bi nga làmboo ci diina lislaam soppe bee la ko jox moo xeyoon ci xaddiim xut bu jaami o yaa di jantu njolloor saxal nga fii ay leer te ci mbur yu doy waar maa ngi lay yalwaan yow mi doon na tiijaan may ma saabe betam xol ma dee ci liimaan fagule naa tibal ma ndax ma jog ci beekoor rafle naa xoduma kon ma baali may gaar sak waloo gën a gaaw xom mu bu bay buur sa xéewal gën a baawaan ba mel ni aw niir saatee gën a wér yaay xalilu rahman te loo wax borom kun dal dinan fa yakun sa xar nga la boo siwal na docteur be koo tëf li mu wér fartu dem ci docteur te koo tëf sa lor wi tafal ko bushura mu tàggoog loru duniya kazaka oxra dama sob di la wéy waaye raw nga say maas li tax ma di la wéy gaani roog borom vaas sa mbootam xali mbaaraw daboo sumu saa sa way dee yi nga dekkal tewoon ne saa kuy murit na ma ñëw way la Seydi Barhaamu waa ji xam na ràññ te sopp Barhaama te jox mam xaatir mbaa may ma saw te baawal mam xel mbaa may ma fahmoom kon danaa mën a way ki fi gën si soodaan di xut bu ruuhi nan ci pays diwaan déglu leen ba ma dellu ci kañ ki gën fii ca azal la ko buur jiitaloon doxul fii baraxaama ba nga rootee ba say bagan fees baawal nga ñala doon xar ba say ni ndab fees xaalam ak xalalam moom la jàkkul islaam pour signal ko bu wér jokko kan mu fay doom Mm-hmm. itam jamoo gën a xiir gaynde mbooya buy buur karaama yaa gën a rëy du si fay door xëy dafa foor mel ni jaami saamaan raxmatoom gën a xiir ca faqiir ak miskiin suqali nga sunu ruux yasuuqoon ca zulmaan ni ñoomin kabu mbaal jën ba wer sa ndangaan la kaaku ko tooy ba bam asamaaw war naa juk bàyyi càggante topp say waaw rabbul jalila ko fal jox ko mantu rabbaan fal ko muy fali doomam siwal na labdaan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 barahaamu raw na leen barahaamu kan mooy baay